asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokk yi nga xam ne yéenay seetaan Touba Argentine TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziare di rafetlu ànd bu ngeen di ànd ak ñun mbokk yi ni ñu leen ko waxee woon léegi nii rek ci biir oto bi eh, ne leen ci kanam tuuti danañ agsi ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di ci ah, Porokhane actuellement nag jamono ji ñi ngi fi nga xam ne mooy barabu soxna jaaratullahi maam Mariama so di wéyjuru cheikhul xadim nga xam ne fi la tëdd moom ngeen di jàkkaar lool nii ngeen gis mbokki jullit yi ak mbokki taalibe yi ñëw fi di amal li nga xam ne moom moo di ay ziar wax dëgg yàlla su ko defee kon eh, incha allahu taala dinañ doxantu ci ñi nga xam ne ñoom ñooy taalibe yi ak ziar yi nga xam ne ñu ngi koy fas yéene amal introsé leen ànd ak yéen eh, fi nga xam ne moom moo di ci Porokhane ak Touba Argentine TV ci sama càmmooñ ma feggoo ci ak ki nga xam ne mooy Moussa Sall nekk sama naataangoo ñu ànd jógee ci dëkk bu sell bi nga xam ne moom moo di Touba Abdou Ndiaye moo ñu nekkool ci wàllum caméra bi mbokki soxna yi tamit incha allah dinañ dem ci ñoom def ak ñoom li nga xam ne moom moo di ay reportage yu am solo. gis nga li nga xam ne aussi tamit ah, moom mooy camion yi camion bii ngeen gis nii eh, moom mooy ah, indi li nga xam mooy koddaayal maam jaara yi koddaayal ah, maam jaara nga xam ne kenn ku nekk ci jigéen mbokki soxna yi bu ñuy ñëw ci dëkk bu sell bii di Poroxaan da ngay gis ñu ñëw eh, di indi ay yére di ko joxe addiyee soxna jaara yére yooyu nag moom la ñuy def ci oto bi kon lii ngeen di seen mooy barabu soxna jaaratullaahi maam Mariama Bousso wayjur Seexul Xadim eh, fii la tëdd muy fii nga xam ne moom moo di ci Poroxaan Euh, gis nga ko nag taalibe yi ñu ngi amal li nga xam ne moom moo di ziar fii mooy jumaa ji nga xam ne fii la ñuy jullee gis nga ko ñu nga ko fi ko defee kon xam naa rek dañuy daal di amal ay quelque ay reportage rek ci ñi nga xam ne ñi ñi ngi fi ñëw euh, ci ci ci ci barab bi le temps loolu incha allah Moussa euh, nga wax ma rek situation bi. nan nga ko dundee nga jógee dëkk bu sell bii di Touba ànd ak Touba Argentine TV ñëw fii lan nga yëg ci bis bi. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatoo yan mbokki julli mbokki talibé yi maa ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp waaw bis bi nag moom ñëw nañ ci jàmm ngir siyaar si soxna si tedd si tëdd fii maam jaaratu daa yi di def ay siyaar di ñaan suñu borom tabaraka wa taala di def lépp luñ ñaan rek ngir taalibe yi suñu borom def ko ay xéewal sotti ko ci taalibe yi yëpp di ñaax suñu mbokk jigéen ñi nga xamante ne bii nag ñoo nekk seen borom kër yi ñu jëm a roy ci soxna su sedd si tëdd fii di soxna Jaaratullaahi ndax li mu am yaafus may ko ko waaw euh, liggéey takk euh, takku déggal borom kër moom moo ko may waaw di ñaan tamit mbokk taalib bi yëpp ñu ñëw ziyaare ñaan seeni soxla incha allahu rabbi dina faju ci kàttanu yàlla waa gañ nii ñëpp barkati Xaadimu Rasuul sëñ bi yow mel na ni yaa ngi fan nga jógee ñëw siyaar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu man ngaay mexe laa jógee maa Omar Thiam laa tudd habli safinatan bi kun lil janna min daaratil minna ni yaasal minna ataani al markuba fi daari minan inda tasin tadxulu ni daari minan noo ngi ñaan ci barkeb Serigne Bassirou lépp lu waaye di sàkku Porokhane ci barkeb Serigne Bassirou rek nu bokk am maa ngi yore afdalu siyaar aw afdalu xaddiya te bokk murit yëpp barkeb Serigne Touba soxna Jaar nag li wax li mën a wax ci moom ak Serigne Touba sant dong lan mën a wax ci moom sant rek sant dong lan mën wax ci moom jërëjëf rek Xaadimu Rasuul man léegi laa agsi amoo jafe-jafe tuut ci wàllu déedéet mosuma am jafe-jafe fenn ndax bi may ñëw daal di soxna Jaara defaral ma yoon wi rek ma génn rek am ku ma indi kon nag sant rek genn jafe-jafe mu daal ah. noo ngi sant bu baax a baax a baax a baax ah. noo ngi sant taalibe yëpp di sant murid yëpp barke Xaadimu jërëjëf dégg ngeen mbokk moomu di nga xam ne noonu la ko waxee dañuy jógee nga xam moo di Ngaye Mekhe su ko defee kon sëñ bi yaa ngi ànd ak Touba Argentine TV euh, bëggoon nañ xam rek euh, lañ nga yëg ci bis bi nga xam ne mooy bisu soxna jaara bi tey nga ñëw teew si fii nga jàkkaarloo waaw sant yàlla rek sant yàlla sant yàlla bis bi moom wax dëgg yàlla moom euh, màggal nañ ko rek di ko màggal rek wax dëgg yàlla di sant yàlla di ñaan yàlla des ci ay taw tawfeex rek des ci ay ngëneel nga xam ne maam jaara moom kenn la rek maam jaara moom kenn amut fayam waaw wax dëgg yàlla lépp lu ci waaye defit moom doo ko rëccu te xam ne moom suñ borom nga koy defar rek. waaw maa ngi dëkk dakaar man nag bi mooy sama première année nag si màggal gi mais wax dëgg yàlla moom ala daw na bi lay walay yaa ngi doog a ñëw Porokhane maa doog a ñëw Porokhane waaw amoo jafe-jafe ci yoon bi déedéet amoo benn jafe-jafe wax dëgg yàlla waaw a ñaan ah ñaan soxla rek lu baax rek laa fa bëgg quoi ah. waaw lu baax rek laa fa bëgg daa mel ni daa mel ni li nga bëgg a ñaan soxna si diis na de <laughs> non non non di sax xam nga rek bëgg lu baax rek ah. waaw jërëjëf jërëjëf ah, jërëjëf moo di ziar gis nga it ñi nga xam ne ñoo yore organisation bi it wax dëgg yàlla ñoom it zone li nga xam ne mooy gilet yi muy taalibe yi nga xam ne ñooy euh, muritu ne ci euh, ci kër gi euh, doon waa kër Cheikh Mouhamadoul Bachir wax dëgg yàlla topp ci ginnaaw Cheikh Mouhamadoul Mountakha di ko jàpp liggéey bi gis nañ ko sol ab njaxas Baay Faal te sëñ bi bëggoon nañ maa ngi jégalu ah, ok su ko defee kon da nga may topp rek ñu daal di ànd Euh, dama ni tuuti rek euh, ci fi nga xam ne moom moo di ci ci biir. Kayar. Kayar waaw. yaa ngi ñaata yoon nga ñëw Porokhane. ah bari na. Ah. waaw macha allah. Porokhane yi nga daan ñëw ak bu tey gi. bu euh, tey gi moom yokk lool rek. yokk lool maanaam euh, xam na ni Serigne Touba ngi fi tey ni mu daan demee ak ni mu demee tey xam nañ ni tey Serigne fi ne kon ñu ngi sant bu baax ci teew gi ñu teew ci kër sëriñtuwaa Touba tey. sëfoor si yokkuñu paase yooyu. déedéet ñun de moom yokk ñuy paas wax dëgg yàlla. ngeen nga mën a indi ci soxna Diarra. xanaa rek euh, xam ni nitug yàlla pire ngi nii ko yàlla dimbali. mu ngi nii ku matarooye ngi nii koo nga xam ne nii yàlla may na ko ku toll ni sëriñ Touba Khadim Rasoul ngay waajuram képp ku fi ñëw war ngaa góor góorgóorluwaat delloowaat sa xel ci yàlla te xam ni yàlla rek a mat a jaamu yàlla rek a jërë dimbali dimbali ko waaw jërëjëf. Serigne Touba Fall laa tudd région de Thiès. da ngaa bokk ci ñuy organiser bi wala. waaw dama fee ñëw indi fi benn daayira fii nii ci biir kër gi. waaw man man maa seen représentant waaw. Uh-huh. lan nga mën a seede ci Soxna Jaara. Soxna Jaara soxna la boo xeen yombul mel ni moom it yombul. waaw moom nekk na koo xam ne roy waale ñëpp ci waroon ñoo ci war a roy bu dee bu dee ci góor fànn bi mu ciy royee mooy mu xool jikko bi mu yoroon mu fexe see teg ay soxnaam ñu jëm a mel noonu bu fekkee waa jigéen la mu xool ni mu doon doxee mu jëm a doxee noonu te yàlla rek tax waaw ñu ngi leen jaajëfal baax